ak ñeneen ñu seen xel màcc ci wàllu suqali dëkkuwaay yi ñoo dajee amal waxtaan ci seen biir indi seen xalaat ci wàllu acte 3 décentralisation liñ ci namm mooy fexe dëkkuwaay yi jëm kanam ba ku ne mën cee gis boppam. fu mu nekk nii suñu réew am na jéego bu am solo boo xam ne nii ñu ngi koy def ci wàllu décentralisation acte 3 boobu dafa mën a dafa war a may bépp nit nga gis ci sa bopp. bépp collectivité locale aussi bépp gox-goxaat nga gis ci sa bopp may aussi nguur gi euh, mu mën a am xel bu dal ndax mën a yaatal li nga xam ne ni moom mooy ay mbébétam. Gérard di kuréel buy amal ay jàngat ci wàllu développement moo taxawal ndaje mi lim ci séntu mooy fexe collectivité locale yi gën a suqaliku moo tax mu tànn ab thème muy xool ana nan lañu mën a defaraate dëkkuwaay yi ci suñu réew yi ñu gis ne que nit ñi tey dañu am ay gis-gis yoo xam ne kenn mënatul rek euh, jële ci kaw tëral ci suuf kenn mënul it jaarale ci suuf te doo dëppaleeg li nga xam ne moom la nguur gi di teg donc mu laaj ay waxtaan yu nga xam ne ah, euh, ñi ngi seq développement mooy acteurs yi ñu mën a xool ci nan la ñuy sartantoo ba mën a tëral li nga xam ne moom mooy liggéey boobu. Gérard ne li mu bëgg mooy indi wàllam ci acte 3 décentralisation bi nguur gi na ma taxawal ñu fësal ay xalaat yu am solo. ñu yaakaar ci ne dana bokk ci lu nga xam ne dana gën a indi euh, leeraange ci politique bu nga xam ne mu ngi jëm ci acte trois de la décentralisation maanaam euh, ana yan coppite moom la ñuy war a indi comme li ñuy wax réforme ngir que suñu politique de centralisation mën a andi euh, naataange ci suñu gox-goxaan yi. ak ndaje mi mu amal ci wàllu suqali dëkkuwaay yi ak yorin wu yees bi ñuy jiitee réew yu néew doole yi Gérard ne jéego bi li ko tax a jóg mooy boole ñi seen xel màcc ci wàllu territoire jàng ci seen expérience jël li ci gën a baax ngir doolelee ko dëkkuwaay.